waaw mbokku internet Dakar midi ñoo ma ci mbégte kontaan seen émission bi nga xam ne émission lamb tey tey nag damaa fas tey ci mbedd mi wax nga gis di waxtaan xam ne askanu Sénégal ci li nga xamante ne mooy ci li ñu jëm mooy ci diggante combat Reug Reug ak Gouye Gui lamb la joo xamante ne nag la waa GFM ñoo ko tëgg ki nga xamante ne tey nee naa la mooy Mamou Cissé tamit ah ñoom ñëw ak groupe GFM yëpp di leen ñaanal tamit ndam ci li nga xamante ne mooy làmb jooju dañoo fas yéene nag wàcc si terrain bi laaj sénégalais yi ginnaaw bañ génne ci li nga xam ne mooy kan bi nag yàlla dogal yàlla may ñu victoire ci kaw Égypte ñun sénégalais yi di ñaan yàlla fi yàlla yëf yi sax yàlla fi coupe bi yàgg di ñëw mais nag damay fas yéene ànd ak sama caméraman ki nga xamante mooy Khalil Diémé nee naa la ndanaanu caméraman yi lu mu fi ñëw baaxut mooy jinne caméraman yi fas yéene waxtaan ak mbokk sénégalais ci combat bi nga xamante mooy Reug Reug ak Gouye Gui nomoon ngeen lamb nomoon ngeen abu tamit abu seefa nomoon ngeen ma tamit ci lamb lool mais nee naa leen fii lay xewee si Dakar midi fii lay tàngee Khalil dama naan topp ma rek ma waxtaan ak sénégalais yi tuuti tuuti ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay tur bi la Noa Touré Noa Touré ñu jëm ci combat bi nga xam ne mooy le 20 diggante Gouye Gui Reug Reug lamb ju ñaari camp yëpp boo xoolee ki nga xamante ne mooy guy gi am na ci lu mu jugee rëy ji tamit am fu teg bëtam ci làmb tey lan nga ci combat boobu. daal lu la mën a xamal nag mooy rëg-rëg na moytu guy gi guy gi dina ko duma duma yoo xamante ni Sénégal ñëpp dinañ ko coow xam ne guy gi mënul bëre simple la mën. waaw lu simple rek la mën de saay saay la na ko moytu na moytu ay kuwam guy gi yàlla ko yàlla may ndam man guy gi laa supporté. waaw. mais ku ci mel ne dafa mel a naagu ci côté làmb parce que ñu bëri dañ ci côté bëre rëg euh, rëg moo gën a mandi bëre te guy gi tamit nag boobu ak léegi gis nañu communication bi dal na lool tey na lan la dafa am lu mu xam ci rëg rëg loo xamante ne rëg xam ko wala. waaw parce que guy gi xam na rëg rëg bu baax xam na ko yàgg na ko siibur euh, sa waay dafa naagu rëg rëg dafa naagu dafa yaakaar day ñëw rek jàpp guy gi taxañ taxañee teg fële te guy gi du zaaru mbër ñooñu waaw ku weddi laajal euh, mbër bi ni nga xam sax. Ama Balde ak euh, kii euh, ak beneen mbër bi waaye bàcc yi waaw Siteu non non bàcc comprendre sa daal lu ma la mën a xamal mooy na moytu sa waay ay kuwam ah, ah, waaw na moytu ay kuwam te xam ne moom incha allah

waaw loolu yëpp coono la waaw guy gi daal euh, làmb ji daal ni ko defoon bu njëkk ba nañ ko bàyyee noonu ku bëgg seetaan taala sa télé seetaan ku bëgg am paas comme paas stade nga dem stade ko waaw ok jaajëf Modou Lo nga faral Modou Lo waaw ah, parce que dama ko bëgg rek de nature ah mais ñëw si combat guy gi rek rek guy gi ak rek rek waaw waaw ñaar kat moo mën rek rek de mais guy gi laa faral kon guy nga faral waaw waaw. <laughs> lan lan la nga jàpp guy li mu da koy dóor mu daanu wala. ah ça dépend daal ku mën daal mooy dóor daan mais guy gi laa yaakaar ne moo koy daan. Mhm. moo tax nga faral guy. xaw ma na laa la ko mën a expliquer de. da nga ko bëgg rek. waaw ay bërëx bërëx yi rek yëpp yi xam nga ak. ni mu nekkee si kii i arène bi et tout waaw. loolu ma neex si moom. Mhm. jaajëf waay. merci. caatu bi noo def. <laughs> sant naa bërëkkat gi nii. sant yàlla wér jaam jaam baax. càndum bu géej waay càndum ñu ñëw si combat bu am solo diggante guy gi rëg rëg xam naa lool moom ay bis yu néew ñoo ci des ci combat boobu lan nga si mën a wax ci diggante ñaari adversaire yooyu. waaw santaat yàlla bu baax jul Seydina Mohamed sant ñu ñaari waajur di waa géej waay yëpp di waa maris gi nga ma fekk dama doom day laat ñu ko bëgg di ko ziar baax. ah, ah guy gi rek ah làmb la ci biir làmb rek. waaw làmb la ci biir làmb yi de. mais Reug ci ñëpp dañ ko def ci favori bi koo wax mu la Reug Reug moo ëpp bëre guy gi mais guy gi tamit nag dafa def ay parcours yu am solo daan ay ndaraan ci làmb. waa mais xam nga làmb moom am na supporter am na amateur. ku ne ak li nga supporter moom li intérêt mbërëm lay xool lu lay wax amateur na day xool day lim gis wala lim jàpp lim xamal ñaari mbir loolu lay wax. waaye man nag wax ragal féetéré xëy na wër sax franchement parlé man doomu géejawaay laa man musu géejawaay bu bëree gaynde feneen sax musu géejawaay laa faral mhm. wax dëgg yàlla muy mbër mu doom mbër mu mag ku mën a doon képp ki doomu géejawaay di bëree moom wax dëgg yàlla laay supporté ñaan yàlla ndam parce que boo amee am ndam soo amee safaan géejawaay am safaan moom laay gisuma gisuma dara Reug Reug ndaanaan la champion la wax dëgg la macha allah waaye nag man sama gis ak mu bëgg-bëgg laay wax man mooy yal na ko yàlla may defet waaw parce que man doomu géejawaay la géejawaay laay faral laay supporté combat boobu boo ko analyse tey ci côté bëre combat bu bu nar a gaaw la wala. waaw mais làmb du mu du gaaw làmb du waaw man gisuma ci gaaw franchement parlé parce que ñoom ñaar ñëpp kenn du ci bëree combat bu gaaw hmm. ñoom kenn ñaar ñëpp dañu bëri ay mbëri jàppante lañu dañ dañ danañ war ci xeex waaye gëmuñ ko signature yi ñu ngi wax dañuy xeex dañuy waaye gëmuñ ko de dañuy bëri si. gis ku ku ci mel ne guy gi nag dafa mën bés yi mel nii bés diwa la mën wala bés tey mu dee bis boobu la gën a mën a wane boppam mais nag Reug rek attention ndaana la ci biir ndaanaan parce que mbër la dafa dugg géejawaay am lu mu fa def daan fa ponkal moo xamante ne ku ci mel ne Elton mu génn fa duggaat laaj ki nga xamante ne mooy guy guy gi nag am ci lu mu jugee. ah waaw mais xam nga géejawaay <laughs> xam nga guy gi dugg na géejawaay daan d'accord naa nangu naa dëgg la naan na géejawaay dugg na fa daan Elton waa làmb du foofu làmb gis nga mbër bu daanoogul ñëpp dañaan moo man bu daanoogul kenn ñëpp dañaan moo man Ah, bis boo daanoo nag ñi doo calculer sa combat yaa nag yaa ko wax léegi ci kay ci guy gi làmb moo demee noonu combat buñ ne tey mu dee mu daan combat buñ ne moo man mu daanu waaye làmb ji nag ju làmbam ne làmb géejawaay la géejawaay ko soxla de. a sa géejawaay ban taxawaay ngeen ci def yéen. ah luñ taxawaay comme dab rek ñun dinaa la wax ren ren dañoo opté ay benn mbir ak ma dañoo opté pour jël pied sa incha allahu rab ci loolu lañ nekk sa am nañ taxawaay boobu yàlla mi ngi suturaal nag yéen sonal si boo leen ñu karul bàyyi dem non ko non da yéen ñu kar classe ay bàyyi jili wasaare googu ñoo ñuy kar quoi bàyyi leen ñu rek ñu dem di ko ñaanal nag may ko ndam ñaanal képp kuy mbër géej waar may leen ndam nag combat bi nag liggéey la laaj wax daana ko la laaj jamono ji taxawaayu làmb ak bés yi mag yi nga xamante ne mu ngi ñëw ci côté làmb ak jamono ñi làmb meloon perfet vu bi ah, gis nañu jamono ji bokk na ci làmb luy empêché dëgg dëgg yenn mbër yi luy empêché dëgg làmb mbir mi du mbiru Sénégal fii mën nga def sax ci Europe dina leen mais ñun fii du mbir mi du suñu mbir amul leen am na lu mu def ci am na lu mu yàq te am na lu mu defar parce que promoteur bi def amul sponsor bi mhm. amul sponsor tëgg làmbam dëgg yàlla tey li xool intérêt lay xool donte nag doomu Sénégal la bu sañoon tamit mu tëgg làmb ñëpp saan ko waaye nag xam nga tëgg sa làmb préparer kenn ñaanu ko yàlla ku sañoon da ngay gagné ñun nag bu ñu sañoon ñun mbëri bu ñu sañoon du am ñun bu sañoon du am dañ koy teg devant les publics ñëpp di ko si saan moo ñu gënal waaye nag ñàkk pexe pexe la. am nekk Bambey dëgg la dina bëgg def ko Sénégal cànd waxuma sax Bambey neel Dakar gi rek am na xam ne mënuñu ko jënd parce que ñëpp ñëpp mooy tolloowuñu mhm. kon dañ def ndimbal njaboot rek waaye tamit nag def lu baax ba loro ci métti baaxul lu musiba de sa yow mi jël sa émission nii tey bu la wër ne boo jëlee ki doo am fii doo ko jël de parce que tamit nag fu yaa ngi xool <laughs> waaw kon loolu la di la ñaanal jàmm di ko sàkku seen bu baax di ñaanal nag waa géej waay yëpp di béggee ñëpp rafet rafet merci waay jaajëf Thiandou nga jàmm waaw naka Sénégal mu ngi ne waaw mu ngi neex depuis ñu gagné dañuy dund victoire bu baax a baax. waaw. moom moom ci ñi jooy ci laa bokk ma. mais tey damay ñëw cosaan tuuti ci côté làmb Sénégal guy gi ak Reug Reug ñoo war a bëri la fin. Reug Reug guy gi ak Reug Reug kan nga faral. en fait que le meilleur parce que ñoom ñaar ñëpp ay amateuru làmb lañ ay champion lañ nañ ko jàppee rek ne comme kenn ki bu gañee moo xam ne yàlla moo ko dogal keneen ki aussi tamit jàppale ñaanal ko daal loolu laa jàpp. waaw ah. ñoom ñaar mais tey tey ci ñoom ñaar ci côté qualité xam nga ci côté maanaam euh, euh, tour ci làmb kan kan ngay gën a dégg. man est-ce que du guy gi. guy gi moo gën a nekk champion de dafa taxaw de te il est intelligent. waaw ah, def nay fi muus daal. kon kon na na moytu wala. non mun ah, en fait ah de ay gardam rek parce que kii il est très intelligent parce que ku dem utiwaat rootiwaat kooku moytu ko. moytu ko waaw. jërëjëf. ok merci maa ngi lay nuyu. waaw doom day maa ngi lay fay. Ah, di laaj tur bi. nuyu dëkk dëkk Pikine. nu rëy ni borom Pikine ñu ñëw ci làmb ju am solo diggante guy gi rëdd boo xamante ne incha allah bi ay fan yu néew moo ci des mooy combat bi la fin la diggante guy gi rëdd rek bu la nga ñu siy wax. waaw boobu nag euh, làmb la quoi vraiment. que le meilleur gagne nag man ndax ndax man man la man Pikine rek laa si boré. mais nag am naa yaakaar ni euh, niñ ko yaakaaree noonu jël favori jox ko rëdd rek mun naa bañ a demee noonu. guy gi mun na koo daan. waaw gis nañ li nga xamante ne foofu yëpp ñu ko jox ki nga xamante ne mooy Reug Reug gis nañ ne ba ci li nga xamante ne mooy Reug ci côté communication dafa naagu wala naagu. waaw Reug moom dafa naagu mais ku xam guy gi mbër yi mu bëreel ak ñi mu daan ak li mu def ci làmb doo xeeb waaw parce que guy gi mën na daan ku ne ndax boo fàttalikoo tàkkusaan bi mu am ak Ama Baldé te bu dee boo yooyu Ama la gën a ës gi daan na ko. te Reug Reug moom xam nga ne def attention mais combat boobu mën na jeexe si bëre wala guy gi sax mën na ko dóor mu kaaw parce que guy gi avant baraay daa baax de. barke alxuraanu karim ay loxo yu dëgër la yor. avant baraam ndawul quoi. mën na ko ngàdd sax mu daanu guy gi mën na ngàdd rek mu daanu. en tant que yéen ana amateur yi nga xam ne dañuy suivre làmb làmb ji nga xamante ne mooy ci côté pay-per-view bi xam nga ñu bëri dañ ko kaas ñe buñ jëndee seen i code duñ ko mën a suivre seen làmb normal affaire yooyu est ce que a am lu mu empêché si ko fi indi xam nga yooyu a saldel affaire yi kenn ku nekk gis sa bopp xam nga mais yooyu affaire Europe la ñun senegal la nekk waaw. jaajëf. jaajëf waaw action. kilifa gi maa ngi lay nuyu. <laughs> maa ngi lay siyaar yow it. Euh, tur bi nan la. Jazel. Jazel ñu ñëw ci combat li nga xamante ne mooy guy gi rër rek la joo xamante ne ni àdduna ñu ngi koy xaar Sénégal yëpp a koy xaar combat la boo xam ne combat bu nar a neex la ñu ngi xamante ni fan yu néew ci des ñoom ñaar te lan nga ma mën a wax ci lamb jooju. <laughs> grand non loolu du combat. Ah. loolu du combat dafa mel ni nga tiim moteur nii rek. Mhm. di laajte ba xam ndax moteur nga tiim. yaa ngi may dégg yaa ngi may dégg bu baax. guy gi rek rek nga wax. non guy gi da kay duma daan. foog nga foog nga tane guy mën na koo duma daan. guy gi ci combat la Aliou xam na li ma ko wax moom xam na guy gi. Mhm. waaw waxal ak Aliou Aliou moom mën na la ay affaires yu demee noonu. mais jamono ji ah, na na nga jamono ji làmb ah ak li bu njëkk ak léegi nii xam nga ñu dugal si ay affaires yoo xamante ne tey sénégalais bari dara ni déranger mooy côté pay-per-view bi ak noonu tey lan nga gis si loolu. foofu boo ñëwee loolu moom moom ma ciy wax lu bëri. parce que làmb bu muy door man suivre ma làmb loolu mooy problème bi mais entre Reug Reug ak Gouye Gui moom bon am naa yaakaar ci guy gi daal. am naa yaakaar ci guy gi jërëjëf. nuyu maa fee naa ci loo ne. maa ngi si jàmm. ba dund victoire bu baax a baax. bu baax a baax fête nañ ko bu baax a baax. neex na neex def. Ah, neex na de. nii dafa weesu neex dafa weesu neex franchement parler te lii lañ bëggoon lii la ñu ñaan yàlla waa ñëw na. ñu ñu ñaan yàlla mu jig ñu quoi. ñëw si cosaan ak aada. si réew làmb ci lañ jëm ci diggante guy gi ak rëg rek combat la xam ne incha la ñëw na ba pare lan nga si combat boobu. bu neex lay doon moom puisque boo xoolee ñaari mbër yi ku nekk mën na bëre. mën na bés. te ça quoi guy gi day neexal bëre guy gi mën na bëre. te te moom du yàgg bëre au fait jos tamit noonu la demee waaw donc ñu ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci si jàmm ak salaam wala voilà et que le <laughs> musul daanu ci ci bëri bi. rëg rëg waaw musul daanu musul daanu maa ngi sax ma wax jos si si kii bi donc rëg rëg musul daanu si bëri dóor bi. waaw te boo moom dafa am doole am fit. voilà xam naa ne daal comment bu neex doon. rëg rëg kii euh, nu mu guy gi du arrière. rëg du arrière voilà bu ñu jaakaarlooyee que le meilleur gagne ah. waaw waaw jaajëf. tey moom lamb laay waxtaan ak yow. lamb tey waaw guy gi rëg-rëg. guy gi ak rëg-rëg. waaw kañ la. ko le vingt la. le vingt waaw. combat boobu dina neex de. ah. <laughs> mais li nga xam njëriñ jox ko micro. la ci wax. waaw combat boobu moom macha allah ah. si Coupe d'Afrique bi. waaw dund nañ football bi mu neex. ñu fete victoire mu neex. ñu dalaa tuuti ci li nga xamante ne mooy cosaan yi nag waaw dem sangu ba sañ sañse lu rafet dem toog estaat jàkkaarloog ndaanaan yi ñu jëflante xam nga maanaam dañ naan asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nii mbokk suñ mbokk yi di leen jaar xam nga di jox seen wàccaay waaw lii moom am na solo ndax euh, fi ñu jigee rek dafa neex ñaata loolu la doon xaar ay at waaw loolu moom boñ ci laajee dinañ ci sawar a tontu ndax loolu mooy Sénégal li ñëw gane si ñu. boo xoolee ba ci biir xam nga ne yëpp sedd na. billaay xol yaa ngi féex. xol yaa ngi féex. Ah. bak Seydina Mohamed loolu moom dañuy ñaan yàlla yàlla gën a def taxawaay bi gën a boole xol rek. loolu moom buñ ko defee rek Sénégal ca kaw ca kanam day baax. bak Sëñ Tuubaa ndax lépp daal booy wane nañ ko tey it doomi réew mi di wane nañ ko. ndax xale yi ba ci mag ñi koo ci ku ci mënul daw mënoo dox. yaa ngi fecc sa biir néeg baak Serigne Touba Mbacké kon xam nga ne xol sedd na waaw yàlla na si yàlla def jàmm rek mais duma buñ ñëwee li nga xamante ni ci côté lamb ci côté ki nga mooy guy gi ak rek rek lamb la xam lamb ju neex la diggante Caaroy Géejawaay lamb yegg dox seen diggante tey ci combat boobu la ma ci mën a waaw combat boobu moom macha allah combat boobu day day neex mhm. ndax man mi de wax ak yow rek rek daan naa ko seetaani mbapat xam naa ko mhm. guy gi mosuma ko seetaan mbapat waaye mhm. eh, rakkam xam naa ko ndax da doon oto waaw man sax rakkam laa gënoon a jox favori ni moom waaye guy gi tey man daf ma bett xam nga daa ma bett na fu mu nekkoon di reyantewaat boppam ba ñëwaat fi mu toll ni nii nii jamono ji ñu toll nii ku xool guy gi xam na guy gi changement am na ci moom bu baax a baax rëg-rëg xam nañ ko parce que macha allah man naa babat man naa bëre te bu yëngatoo daal xam nga waaw mooy loolu macha allah waaye daal. xam nga ci côté bëre dóor musul dégg nag mu ñël. waaw waaw loolu waaw loolu da ciy da ciy joué ndax boo xoolee rëg-rëg rëg-rëg maanaam nit ñi nañ koy bàyyi xel waaw dañ koy bàyyi xel waaye nag man ci kaw li ma koy dolli waatu tuuti rek mooy na tee ndax guy gi nii rut bëre de bàcc sëñ Tuubaa Mbàkke nii rut ku dee ko li naan li olof naan ku dee ak sa bàmmeel nit ki lu muy wax lu nekk na ko xoolaat man moom bu fekkee lu may digal Reug Reug na jox Reug Reug na jox guy gi maanaam doole ji jox ko fulla ji jox ko ci fayda ji respecté ko bu ko defee rek dina ko daan waaye bu bu bu ci jalgatee benn bak Serigne Touba Mbacké guy gi guy guy guy guy gi jaarale ko yoon ndax guy gi niirul waaw làmba gi noonu loolu moom neex na moom waaw yàlla na yàlla defal jàmm rek waaw ndax man moom ama laay laay bége waaye man li ma ciy wax rek mooy ñoom ñaar ko ci yàlla defal ndam rek ñu xam ne ñun ñëpp doom Sénégal lan ndax léegi dañ ko war a rafetal ndax fi mu toll nii maanaam nan bàyyi yenn yi saltelmaan yi nan ko bàyyi fii kenn gënut a ñeme kenn yaa ngi dégg kon nan bàyyi nit ñi xam nga ranki ñi ñuy jéem a dund ak ak Baye Fall yi loolu rafetul quoi bu ñëwee ci làmb nan xam ne làmb moo ñu yëkkati loolu mooy neexal sunum réew waaw ci ñii di defar nag ñii di yàq Sénégal du dem kanam waaye bun boole ànd defar rek day baax sëñ Fallou dina laaj tur bi nan la. man Mouhamed a tudd. Mouhamed Diagne Mouhamed Diagne jëm ci journée bu am solo muy diggante guy yi rër rek muy làmb joo xamante jamono ji Sénégal yëpp dañ koy yàkkamti muy le 20 tey diggante combat boobu lan ci mën a wax. waaw combat bu mag la combat bu neex lay doon tamit wax dëgg yàlla parce que sooy seet rëg rëg daa jugee maanaam si victoire victoire bu am solo ba pare sooy seet parcours bu rafet la la def waaw ba pare bëgg yéeg ci kaw te guy gi guy gi tamit bëgg na fekk ay moroom ci kaw ay Ama ñi ngi fa ay Boy Niang ñi ngi fa moom tamit day bëgg am victoire pour fekk ñooñu parce que su amaatee defet combat bi rek day gën a wàcc ci suuf. moo tax combat bu mét combat bu métti lay doon waaw. Reug Reug duggoon na daan fa ki nga xamante mooy Elton yàlla dafa tam mu duggaat géejewaay guy gi nag nee ko daxaru saf safaat dugg nga ñam ko mu neex boo fa duggaatee man maay nekk ki nga xamante mooy kilay freiné mais gis nañ ci biir combat bi Reug dafa mel ne que dafa xaw a naagu ci côté guy gi est ce que naagu war na rek ci combat boobu. non naagu waru ko parce que guy gi ko xool xam ne guy gi champion la. guy gi moom champion la quoi vraiment jaru mu koy estimer benn côté Reug Reug c'est vrai que mën na bëre am na doole. am na doole mën na bëre parce que wane na ko si combat yi passé yëpp mais tamit estimé guy gi guy gi am doole mën na bëre moom it waaw. moom combat bu neex doon daal. mais jamono jii ñi làmb tëdd est-ce que arrange perfet view parce que boo xool da ngeen jënd seen i xaalis ja ba doole am li nga xamante ne mooy li ngeen bëgg ci li nga xam ne mooy combat bi est-ce que loolu dina arrange ci combat yi nga xam ne ci kanam. non loolu moom du vraiment sooy seet instant bëri da ngay dem stade bon li nga bëgg si combat yu mag yi doo doo gis quoi vraiment ay par avertissement lay jeexee xam nga mais combat bi moom gëm naa du jeexee noonu quoi combat bi moom gëm naa dina neex trop vraiment waaw. ñu ngi lay jaajëfal jaajëf jaajëf kontaan. wuri wa dem na ki nga xam ne dem na ngan tàll bàkk war mbaam maa leen ko digoon maa leen ko joxaat waaw Abou Sefa maa leen waxoon ni laa koy defee fii ci Dakar midi gis ngeen nag waxtaan wi. neex na loolu ambiance nag gars yi waxtaan nañ ci li xam damay mooy combat Reug Reug ak Gouye Gui yi nag maawoo ñu ngi ñaan ci li nga xamante ne mooy sécurité ci bisu làmb jooju surtout ma Pikine waaw lamb toujours dañuy gis xale yi violence bi xama nga damu ay ban ak yeneen ak yeneen yoo xam day xew ci làmb ñu ñaan làmb jooju yàlla na egg jàmm ak salaam di wax tamit nag réew mi suñu réew la bu kenn xar ñaar guy gi ak Reug Reug ngay mais dama ne diggante Caaroy ak Géejawaay la waaw parce que boo xoolee Papa Kan Caaroy la nekkoon lamb yàgg na fa dem Mor Fadam nekkoon géejawaay saa kajoor numéro un nekkoon géejawaay ah ñoom ngeylum ñoom père Maxime Margan ñoo nekkoon Caaroy ak ñeneen ak ñeneen ay ndaana ñoom ñu ngi woon Caaroy lamb ak diggante géejawaay Caaroy lamb yàgg na dox seen diggante mais lamb ji nee na ju neex la lamb ju alaa doomi supporters yi wax nañu amateurs yi wax nañu ñëpp wax nañ ci li nga mooy ci ci combat boobu di wax nag yàlla na ci yàlla jàmm ak salaam di ñaanal tamit équipe bu Dakar Midi yàlla dafa leen tawféex te nag nee naa la jinne kàlla dina la àndal lu mu jëlul baaxut barki yonent bi ah jaa ngeen jëf émission lambi tey ak abu di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di wax Fadel Dakar Buzz yàlla na yàlla yokk yàlla dafa la tawféex waaw sa bis bi dimanche incha allah bi ñu fas yéene see ànd ak yow nag ba jour stade ba ñu gunge la waxtaanee ko parce que ñu ñoo xewle su noonu la xale jéem a tëjal ñu daw.